daal du a <laughs> damaa bëgg xam nga plateau dama dama dama toog ak ak ak Yves des TV. Mhm, sama frère. mu woo ma woo na ma lundi woo ma mardi maanaam mu ñu bu may wax daal en grosso def nañ six heures de temps d'émission ci loolu ci accident si kilo boobu. Mhm. ci point yooyu. ñu toog étalé ko xoolal ak euh, Ngone Saliou mu toog étalé point par point. ma wax ci sama xalaat gis nga gars yi bu ñuy bañ dara dafa am fuñ ko teg. waaw ah wallaay Azim bañuñ comme di bañ nii rek mel ne amuñu xel ñun parce que ñoom permis à point damay la permis à point pour képp conducteur yëpp la concerné. du sama transport kese. oui oui mais ñu suñu pàcc. transport bi ñuy def am nañ ci niñ ko gisee ne que bañuñ ko musuñ koo bañ nag mais benn dañ njëkk a teg man la tontu dama ne pareeguñ benn pareeguñu. li ma lay yëg rek kan mooy état. état mooy kan. merci. ci biir wax dégg naa nga ne dañoo am problème bi lëm bii. waaw kon ñun ñëpp ñoo am problème bii. kon secteur yëpp ñoo am problème bii ki war a defar est-ce que ñun waruñ sax àgg ci. kii war a dóore moom la ñu war a njëkk duma dama naan kii yor yar di wër ku mu dóor bu ko tegoon ci boppam mu damm du am lu mu dóore parce que lam ñuy tere ma ngay def le pire c'est parce que. c'est pas une raison non maa ngi ñëw. de du raison nag wax na dëgg. kay du waaw maa ngi ñëw. c'est pas une kii yor yar. waaw waroo dóore. yar bi bu ko doon dóor ci boppam damm na ba pare du am lu mu dóore xam nga li tax ma wax loolu. Hmm. kan moo war a sanctionné. état waaw kay est-ce que état wàccoon wàccoog naag ki mu war a sanctionné mooy ñim est-ce que état lu ñu warloo ñun def nañ ko. def na ko kay déedéet. defalul la ay tale yu baax. ah Dakar rek mooy Sénégal. non déglul baax li ma wax dama ne. defal na la ay tali yu baax. neen am na lu mu defar ci tali yu baax. non dama ne état laa wax de. waaw ba tey defal na la ay tali yu baax. man maay taxi de. yoo xamante ni dañoo respecté les normes. parce que état loolu la lay waxal. la ilaha illallah. est-ce que xoolal xoolal xam nga xam nga état mënuma cee génn moo tax ma ne la kan kan moo war a dóore ki war a dóore kan la est-ce que man war naa war a mën a dóore man mi nga xam ne nii man maa jàngal booy bii dawal. ba pare may dégg ñoo naan mënul dawal dafa réew dafa lii est-ce que moom man mi ko jàngal man lim def moom nekkul ci man est-ce may dégg est-ce que booy bi lim def bañ koy pointer le doigt daa réew mënul dawal jàngul code de la est-ce que ki ko jàngal dawal bu dee am na ki ko jàngal dawal. bu dee am na ki ko jàngal dawal bu dee mbapat na métier mi. Mm-hmm. est-ce que kooku tane na ko parce que nit dana jàngal. nit mu dàq gën laa ay yow mi ko jàngal gën laa aay. est-ce que comprendre nga baax waaw état Sénégal boobu xam nga des fois dama wax ni léeg nga dugg ci sens interdit léeg nga dugg ci sens interdit man ma xam ne sens interdit la yow nga dugg fa doo xam ne sens interdit la ma dajal yow ne la yow seen bi fii. mënul mënul nekk. waaw waroo mën a dugg ci sens interdit. te doo xam ndax fii. du sens interdit est-ce que yow sens interdit yëpp am tableau. fépp ay am part déedéet su demee rek am na ñeneen ñu ko dindi. merci beaucoup est-ce que voilà est-ce que prétexte la est-ce que prétexte est-ce que du gan moo fa ñëw nekk bees tax kooku lu ñu koy jàppee boo ko waxee ne sans indil la mun la awma tableau gisuma ko day nekk ci dëgg mënuloo ko dara parce que li ko war a war nekku fa.